waaye tey ñu gis njaboot yëpp ñi nga xam noonu la ñu génnee waaye seen télévision bi di Thiès TV rek di ci ànd ak yéen saa su ne di leen jëlal ay reportage waaye tamit di dem ci biir xabru yi ak li wër bërëb bi yëpp ngir mën koo jàlle message waaye nag jamono jii di ñu seetlu fii ci Touba mbooloo ma mi gën a takku nit ñi gën a génn waaye di wane seen cofeel ak ziyaaraat yi xam naa boo ko defee rek dañuy ànd ak Mouhamadou Lamine yegg ci biir daal di continuer jël li nga xamante ni mooy taalibe yi ak ni ñuy waajale bi su màggal gi jamono ji nag eh, ñu ngi nii ci eh, jumaa ji nga gis eh, mbokki taalibe yi yëpp ni nga xam ne noonu ñu génnee dem di ziyaare xabru Serigne Touba Xaadimu Rasul mi nga xam ni moom moo wootee màggal gi ay jamono ji ndeysaan gis nga mu tombeek ci jamonoy mbas loolu moo tax ñu nekk ci jumaa yi ñu ngi yëkkati masque yi di ko jox fidèle taalibe yi ngir ñu mën koo yittewoo utiliser ko ci biir jumaa ji ay jamono ji nag ñu ngi continuer di gis mbooloo mi ni muy gën di takkoo ah, di ñaan rek suñu boroom ci màggal gi yàlla jaare fi faj aajo biir ak bitti yàlla jaare fi sàmm senegal waaye suñu boroom jaare fi mbas mi nga xam ni moom moo lembee réew mi yàlla mi nga xamante ni moo am saafara te yàlla mi nga xamante ni moom moo mën a dindali xew yëpp yàlla na ko suñu boroom subhaanahu wa daal di ko fi jëlee. gis nga mbooloo mi mi ngi gën di bari di gën di takku ñi ngi gis tamit euh, Ousseynou ak Assane di suñuy mbokk ñoom tamit ñi ngi ci liggéey bu am solo ñu ziar leen bu baax a baax jox leen seen cër e, jamono ji nag euh, ñu ngi jëm nii nag ci euh, jumaa ji ngir rekk daal di yeggale liggéey bu am solo bi nga xam ni seen télévision Thiès TV saak màggal mu ci ànd ak yéen ay jamono ji ndeysaan bépp nit ki foo xalaat ci àdduna ak lu ko wër ñoom ñëpp ñëw nañu teew teew ak mbooloo mu daal di xaw a takku mbooloo moo xam ni ñu ngi ciy demandé bëgg ñi nga xam ni ñëpp dañuy dugg rek ci biir jumaa bi ñu fexee góorlu bay am ay masques yoo xam ni dañu koy takk waaye gis nga ndeysaan sécurité bi rek suñu kilifa yi euh, waajur yi kenn ku ne tamit jugee fu ne ñëw ci bërëb bu tedd bi ni ñu ko waxee tey ci bisu màggal gi waaye nag xam naa du ñàkk tamit dinañ am ay fidel euh, suñu waajur wi rek sëñ ñu ngi lay nuyu. noo lay fay. jamono jii ñu gis la nag yaa ngi dem siyaar Sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul. waaw ñu siyaar de. waaw di ko bëgg rek te te dogu te te te dogu sëñ bi waaw waaw noonu suñu waajur boobu fas yéenee màggal ko sëñ maa ngi lay nuyu bàppa. jërëjëf waay doog sant Sëriñ Tuubaa rek. sant Sëriñ Tuubaa rek. xam nga li suñu waru garam. fekkee saraxool rek mooy suñu waru dafa seen magasin di sant Bougane Gueye. jërëjëf ayca suñu waajur boobu mi koy sant bu baax a baax gis nga ñu ngi séparé mbooloo moomu di leen gën di waajal ci rang yi bu ko defee rek mbooloo mi mi ngi noonu di gën di euh, bari ci bërëb bu tedd bi xam naa rek du ñàkk mbokk taal maa ngi lay nuyu. maa ngi ziar bu jamono jii ñu fekk la xam sëñ Touba Xaadim Rasoul. ñooy sant wér ñu sant bu a baax di sant bu sëñ Touba Xaadim Rasoul di ñaan Cheikh Maodo Mountakha Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal. saxal ko fi lool ñaan ànd ak moom liggéey bi ñaar téeméeri at waaw. jërëjëf mbokki taalibi boobu sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax a baax. ñu gis tamit yéen ngeen nekk ci jumaa bi nekk ci wàccaayu màggal gi. dëgg la dëgg waaw waaw waaw ñoo ngi si jumaa ji waaw gis bu sëñ Tuubaa la ñëpp war a yëngatu nekk si jumaa ji liggéeyal ko rek waaw pour am ndam waaw. jërëjëf am na solo ba tey rek gis nga Lamine que mbooloo moo takk woowu ñii lañ koy defee. bu ko defee dafay am benn lim boo xam ni moom la ñuy bàyyi ñu daal di dugg ñooñu ba ñu duggee ba def seen ziyaaraat ba daal di yeggal bu ko defee rek yeneen mbooloo yi la ñuy préparé noonu waaye fii nga xamante ni fi la ñu taxawee bu ñu defalee rang yi rek ba rang yëpp jaar yoon su ko defee nag bu ñuy jàllaat fi ñoom ñëpp dañuy daw def seen ziyaaraat daal di continuer ndax dañuy bañ mbooloo mu takku daje ci biir waaye boobu ba tey daal ñu ngi sant bu baax di gërëm. ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci jumaa ji wax dëgg yàlla lépp a ngi fi mat lépp lu nañ ko ñu ngi gis gel yi ak masque yeeg yëpp ñu ngi koy joxe waaye tamit li lépp loo xam ne sëriñ Muntaxa digle woon na ko taalibe yi ñoom ñëpp kenn ku ne yaa ngi ci góorgóorlu waaye tamit ah, du tee nag ñu sant bu baax a baax ñi nga xamante ni mooy policiers yi boobu ba tey tamit ñu ngi ci liggéey bi ànd ko ak sécurité bi nga xam ne moo nekk ci jumaa ji ak taxawaay bu am solo waaye tamit di jaajëfal rek euh, kullu presse ndax dëgg yàlla euh, média bi nekk Thiès ñoom ñëpp gis nañ leen taxawaay bu am solo waa Sen 24 boobu ba tey ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo Prestige TV tamit ñëw ci màggal gi xéewal TV ak euh, Thiès Média ba suñu waajur mbay Samb ak tamit Carrefour cees bi nga xamante ni Carrefour média bi nga xam ne suñu frère Serif moo ko moom daal seetlu nañ ni média bi nga xam ne moo nekk Thiès ak site internet yi ñoom ñëpp kenn ku ne ñoom ñëpp ñëw nañ di wane seen pas-pas bi ñu am ci màggal gi xam naa ba tey rek dañuy wëyal ci yeneen jëwrin yoo xam ne ñu ngi fii ci biir euh, jumaa ji xam naa rek ginnaaw bi ñu leen nuyoo tamit daal leen di ziar waaye ñu ci bari yenn saaj euh, da ngay bëgg ñu wax waaye doo leen mën a am ndax day fekk ñu nekk ci liggéey bi gis nga ni ñu ko waxee mi ngi noonu rek day am lim gis nga bu ñu ñëwee fii Lamine image yi jar na jël balaa ñoo dugg ci jumaa bi gis nga ni ñu koy defee rek dañuy jël gel bi jox leen ñu daal koy utiliser gis nga mi noonu ci ji daal xamal leen lépp loo xam ne mesure la li Serigne Mountakha ñoom ñëpp ñu ngi koy jëfe ñu ngi takk masque waaye tamit ñu ngi jël li nga xamante mooy gel jox leen ko seen loxo waaye gis nañ ci mbooloo mi tamit jumaa ji nañ ko partagé day am benn lim bu dugg bu ñoo ñu yeggee ba ca kanam ñeneen daal di dugg ngir bañ mbooloo bu takku daal di ci biir waaye lii rek day wane pas-pas bi nga xam ne yoonu murid am nañ ko waaye tamit li ñu seetlu mooy ñëpp ñi nga xam ñi ngi dugg jamono ji Lamine gis nga euh, soxna yi ñoom ñooy dem di ziyaaraat noonu dañuy pose góor ñi bàyyi jigéen ñi daal di dugg bu ko defee rek jigéen ñi bu ñu defee seen ziyaara ba noppi góor ñi daal di dugg ndax ci barab bi dañuy bañ jigéen ñi ak góor ñi daal ciy daje waaye lépp rek lu jëm ci wàllu mesure de sécurité ñi ngi koy jël respecté ko ñoom ñëpp takk masque yi waaye balaa ñoo yegg yëkkati zel jox leen lépp kon mi ngi noonu waaye gis nga tamit noonu la ñu taxawee may soxna yi incha allah bousee ba yegg incha ci la ñuy bàyyi góor dugg gis nga Lamine li mu soxna yaa ngi noonu ku baax maa ngi lay nuyu. jamono jii ñu fekk leen ci jumaa bi ñu bëgg xam organisation bi ni muy demee. waaw organisation bi maanaam si sant sëñ bi rek euh, di laaj biir ak euh, way ziar nga xam ne si biir pour ziar pour yombaleen vraiment ñu mën a dugg waaye nag mbégte rek la waaw waaw waaw waaw ñu ngi si ànd ak vraiment ñuy jàppale góor ñi nekk ni jigéen ñi nekk daal waaw ñu ngi ci daal ñu ngi ci daal ñu ngi ci daal ngi ci daal ñu ngi ci daal. <laughs> jërëjëf am na solo gis nga boobu mbooloo mi tamit ni muy gën di takkoo jamono ji ñoom ñëpp ñu ngi dem nag ci bërëb bi dañuy bàyyi rek soxna yi daal di yeggal bu soxna yi yeggalee incha allah rek bu ko defee ñu daal di bàyyi euh, góor ñi tamit daal di mën a ñëw ziyaara gis nga mbooloo mu waa ngi noonu waaye niñ ko waxee rek dañuy bañ daje bi entre góor ak jigéen. loolu moo tax rek incha allah ñu fas yéene euh, del nag euh, jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy dugg noonu di ziyaara bu ñu yeggalee incha allah rek ñu daal di continuer euh, gën di wëyal gis nga mbooloo maa ngi noonu takku lool gis nga ndeysaan ci biir du ñu nangu kenn yàgg fi dañuy bëgg rek bu nit ñi duggee def seen ziyaara rek bu ñu paree noppi gis nga jamono ji soxna yi ñoom ñooy ziyaare noonu gis nga waaye lii day wane ni. organisation bi fi nekk alhamdulilah sant yàlla gis nañu fii ni mu aéré ni mu espacé Touba li muy bëri mbooloo mboo li muy bëri nit nit nit jumaa ji fexe nañ ba organiser ko ba ñi nga xam ne ñëpp ñi ngi fay dugg kenn du fa daje gis nga Lamine image yi moo koy wañe Touba gis nga ci xabru bi ni mu libre ni mu amee espace nga xam ne ku ziar daa ji dox ñëpp ci bisu màggal gi gis nga jamono ji wax dëgg yàlla daal ñu ñaan suñu borom rek yàlla gën a yàggal fi ñi nga xam ne ñoo ciy liggéey waaye sëriñ ñaan samit suñu borom subhaanahu wa taala mi nga xamante ni moom moo sàkk jaam yëpp yàlla na fi yàggal ci nga xamante ni mooy Serigne Mountakha gis nga ndeysaan ñoom ñëpp ñu ngi dugg di ziyaara Serigne Touba liggéey bu am solo bi nga xam ne liggéey na ko suñu borom moo tax fépp ci àdduna ak li ko wër nañ jóge ñëw di ziyaara waaye kenn amul sago waaw waaye nag li ci gën a yéeme gën ci yéeme mooy gis nañu jumaa ji dafa libre trop trop trop nit ñaa ngi dugg. facilement ñu def seen ziyaara te du ñu ci am benn benn jafe-jafe duñ ci am tamit benn problème gis nga góor ñaa ngi commencé ñëw góor ñi ñooy dugg si noonu gis nga Lamine euh, góor ñi ñoom ñooy dugg si noonu ñu ngi nii nag ci euh, xabru Serigne Touba Xaadimu Rasul gis ndeysaan nit ñëpp ñëw di ñaan di ñaan suñu borom rek ci barke Serigne Touba Xaadimu Rasul yàlla may Sénégal jàmm yàlla ubbi ñëpp yàlla sàmm ñëpp. ñi nekk ci jafe-jafe suñu borom saafara leen ñi nekk ci problème suñu borom fajal leen lépp loo xam ne doon na tiis ak natt ci réew mi ñu ñaan suñu borom yàlla sàmm ko yàlla saafara ko waaye ñaanal bu baax a baax képp koo xamante ni suñu mbokk nga di ci nuyu di ci ziar di ñaanal waa Carrefour Thiès yàlla sàmm leen. yàlla ubbi leen ci barke Nabil Moustapha waaye ñaanal la président d'honneur président El Hadj Mor Gueye sopp na bi yàlla sàmm. waaw foo jógee. maa maa maa ngi jógee Kaolack la laa jógee. Kaolack nga jógee ñëwoon ziar. waaw ñëwoon ziar dama doon gis ma bëggee leen. parce ma woo woo moom laa laa bëggee ma taali taali ba maam xalifa laa moom. Mhm. waaw te taali ba maam xalifa ba bëgg Walf rek. Mhm. billaa wa kitaab yàlla xam na ni. Mhm. mosuma leen gi gisutoon ah. ma nekk. waaw ma boo dama leen bëgg te yàlla tax yàlla xam ne dama leen bëgg te yàlla tax billaa wa kitaab bi ba ñëw fa. bëgg seen Oustaz nu bëgg Oustaz Adi laa ko bëggee billaa wa kitaab jërëjëf man man waa gëm maam Khalifa. Mhm. ñoom dalal ba ah. Mhm. Pala Ibrahima Niass al mhm. moom mu njëkk a da dalal ba. ndeysaan wala du doo fàtte ba mukk mu heure mujj la daan ma koy ñaanal. ayca Lamine vidéo dafay daw nag ndax Thiès TV ak Walf benn lañ tutu aan suñu jigéen nekkal ñu fa ci liggéey bu am solo kon nag ñu am mbégte bu baax ñaan suñu borom yàlla sàmm la ñu daal lay bàyyi nga dem daal di ziare ayca waa Thiès TV bu leen ko dagg témoignage yu am solo yi nga xam ni def nañ ko ci Walfadjri xam naa aussi. waaw ah, man maa jógee Dakar. Uh-huh. waaw ñu ngi sant bu baax a baax Serigne Touba bu baax a baax waaw comme bépp mbokk taalibe rek waaw yees ñëw yeesal suñu jébbal ci sëñ bi waaye tawfeex bu màgg rek ñu ngi bég bu baax a baax di ñaanal sëñ Mountakha bu baax a baax mu yàgg fi loolu te ànd ak wér waaw suñu borom mottali naal yim naal yëpp a Cheikhul Khadim acca jërëjëf ko defee rek ñu am beneen mbokki taalibe sëñ bi maa ngi lay nuyu Lamine Lo salaamaaleykum waaleykum salaam euh, ak foo jóge maa ngi jugee Tivaouane maa ngi tudd Lamine soo ma xoolee sax xam ne damaa bég mbégte mënta weesu lii jërëjëf si Ahmadou yàlla nañ ko yàgg a fekke lii moom ku ci kontaanul rek da xamul li e ginnaaw bi ñu sante yàlla nag dañ leen di ñaanal yéen waa Thiès TV fu ngeen bëgg seen télé bi romb dem yàlla na ko romb nii rek la liggéey rek gëm sa bopp rek suñu àndee booloo yéenente jàmm lu ñu bëgg dinañ ko am réew mi dafa nekk dëkk bu spécial bu ngeen xoolee wàllu yi fi wàcc daanaka amul fenn ci àdduna bi kon nag nañu jàppante rek ñu bëggante bis bi wane na ko kër goo dugg di nga xewlu kër goo dugg sa aajo faju kon nag jërëjëf sëñ Touba jërëjëf jërëjëf ay ca jërëjëf xam naa ni Papis Seydi mega ca beneen wet ba dañu jëlal euh, fidèle yi nga xam ni ñoo nekk ci dëkku tedd bi xam naa dañuy ànd ak yéen dem ci résidence ba jël fa yeneen euh, nit yu baax yoo xam ñi ngi ci dëkku tedd bi incha allah bu ko defee yeggale